kontaan te gisaat la fii ci concert Abiba lan nga gisee prestation am tey. waaw euh, je pense que Abiba évolué na xam nga depuis euh, trois ans euh, bi ma ko gungee ba un certain moment après dama ko bàyyi mu demal boppam créer staffam après ma koy surveiller de très loin yàlla xam na ne concert bi moom ak xaritam yi ñoom ñoo ko organisé de A à Z et ça été je pense un très grand spectacle comme ni ñu koy wax xele màgg na. Euh, concert bi vraiment gis naa fi qualité bu baax daal si si mise en place bi si sonorisation bi mais aussi qualité prestation de de la chanteuse. mu mel ne carrière am am na évolution changement de sonorité yi euh, audace bi mu ci am nan nga ko. waaw am na am na am na évolution sur les sur les sons euh, da ngay sentir def nañu recherche yu bëri. am nañu aussi de très grands musiciens yoo xam ne ñoo koy accompagner loolu moo gënee valeur bi yëpp quoi mais xam nga le chemin est très long il reste beaucoup de choses à faire parce que macha allah mu ngay soog a am vingt ans je pense que il faut mu am euh, beneen tournant il faut mu gën a liggéey il faut mu gën a variété ses sons il faut aussi mu mu gën a imposer wu daal mais bon macha allah li ñu doon séntu au début euh, gis nañ ko. mooy euh, pousse ko encadrer ko mu am fulla ak fayda exploiter talent am tout en gardant ses valeurs. Euh, mi ngi si bon xam nga labelu Gamboul bi dama ko def label tampon la woon comme temps yi may gérer daara ji dans les années quatre-vingt-dix euh, label ISEG laa indi woon pour accompagner daara ji ak beaucoup de groupes demee ba nga xam ne vraiment am na maturité Alaaji Man Fada Freddy ak Ndongo Di. Euh, ñu def leen sous forme de professionnalisme won leen yoon wi utal leen maison de disque bàyyi leen ñu dem à l'international après ñu prouver puis aussi euh, Gamboul bi euh, ki tampon la woon rek ah structure tampon pour pousse ko moom ak moromam mi bi ñu ko poussé en un certain léegi nag mu jël labelam def ko baa Musique donc dañ ko doon sponsorisé mais label Gamboul bi dañ ko war a faire xam nga mu ngi fi ba léegi pour essayer de produire d'autres talents surtout en milieu universitaire xam nga pour en tout cas suñu gisee talent boo xam ne baax na ñun dañ ko essayer organiser euh, pousse ko ba mu ba mu dem daal voilà. kon yaakaar nga ni musique am gën a évoluer li gën a dem musique am euh, je pense que mu nekk nii la prochaine étape c'est vraiment l'international euh, ñu ngay xool nan lay def bu continuer étude am comme am na bac dans le domaine musical parce que loolu la bëgg. muy ay États-Unis muy ay Europe pour gën a affirmer wu daal euh, je pense prochaine étape bi loolu la mu musique gën a gën a dem bon c'est vrai que des na ay détails yu ndaw a ndaw te xam nga en matière musicale les choses évoluent très rapidement euh, bon war da yàkkamti aussi dama ko ne il faut mu am une très grande patience parce que sans cette patience là moom du mun a évoluer da am temps yoo xam ne dafay am temps fort am temps faible léegi nag il faut mu xam euh, kañ lay nekk temps fort ak kañ lay nekk temps faible mais je pense que le potentiel est macha allah est très très très grand te potentiel boobu dinaa ko gën a aider dañ ko gën a aider même si aw ma temps xaw naa jël beaucoup de recul parce que c'est pas c'est pas mon domaine c'est pas c'est pas mon métier. Euh, je pense que euh, en tout cas ñu ngi si yoon bi. question euh, musique bi da ko bokkal ak ay moroomam ak yooyu noonu lan mooy force am lan ban conseil nga koy jox yow mi encadré ñu bëri artiste ñu bëri ba tey fu ñu toll ñu toll fi ban conseil bu faar nga koy jox pour mu mun a eggale carrière si. bon moom moom force am Abiba force mooy que mën na wéy variété musique yi yëpp. Euh, loolu mooy première force am d'ailleurs euh, bi muy soog a commencé maa ngi siy gërëm Youssou sundu moo ko yóbboon Grand Théâtre et bi ñu si waxtaanee dafa ne kii mën na wéy tout les variétés musicales donc suñ ko encadré dans le temps mu gën a liggéey dana dem bon conseil bi ma koy wax mooy mu continuer di liggéey quoi xam nga am en matière de musique c'est un côté artistique dafa am côté boo xam ne musicienne bi ou musicien bi moo ko moom euh, bu nga xam ne moom. il faut mu suivre xam nga l'évolution de la musique kii euh, xam nga musique à peu près mode la quoi mu suivre sonorité yi dem quoi mais mu gën a liggéey garde valeur am gën a sérieux si li muy def euh, gën a xool entourage je pense que dana dem man nag maa ngi fi pour soutenir toutes sortes de musiciens malgré tous les problèmes qu'il oui mais je, je suis là peut-être parfois je suis victime de ma générosité xam nga mais pour man doomi jàmbur suma doom la comprendre nga parce que si éducation bi laa nekk xëj na sax euh, li may consacrer temps si doomi jàmbur yi man duma ko consacrer temps suma doom yi ñeneen ñi may gis du ma leen gis daal nga xam ne dama ne man lu ma am dama koy séddoog ñëpp dama koy séddoog suma sumay doom dama koy séddoog doomi jàmbur yi nga xam ne koo xam ne aussi am na kii musical exactement euh, parrainage yi sous d'autres condition c'est vrai que euh, damay bëgg di superviser mais ma nañ mën nañ def équipe de professionnels yoo xam ne de grands musiciens euh, yoo xam ne dañ mën a jël xele yoo xam ne am nañ talent vraiment ñu jàppale leen. di gërëm Sénégal vraiment votre professionnalisme defoon nañ ko il y a <laughs> deux ou trois ans dajewaat nañ fii di ñaan ñu defaat ko ay ati ati at yu merci merci.